salaamaaleykum am ne Dakar bës ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm waaye di am te jàkkaarwaat ak yéen seen émission mag bi di Dakar bës social di sant yàlla bu baax ci ni ngeen ñuy toppee dinu ñaanal dinu encouragé ci émission bi di ci participer ci itam gis nañu baax li ngeen ci def waaye di nuy ñi nga xam ne ñooy waaye biir réew mi fii di dund ak ñun émission bi di nuyu ñi nga xam tam ñoo nekk bitim réew di dund ñun émission bi di ñaan képp kuy bàyyi xel Dakar Buzz Social maa ngi ñaan yàlla taxaw la yàlla jàppale la yàlla defal sutura di ñaan aussi itam doomu sénégalais nekk ci àll bi diaspora bi di góorgóorlu di wut lu nu am ngir indi ko ci réew mi maa ngi ñaan yàlla jàppale leen te suturaal leen te dooleel leen ba nu mën a am teraanga mën a ñëwaat ci réew mi ci barke yonent bi waaye di leen wax ni dem leen ngeen télécharger application Dakar Buzz bi nga xam ne moo nekk Play Store ngeen di dugg télécharger application bi. dina la permettre lépp loo xam ne rek mu ngi xew ci biir Dakar Buzz di nga ko am kon bu ngeen demee Play Store télécharger application Dakar Buzz dara leen ump ci àdduna bi rawatina fii ci réew mi ndax lépp loo am ne rek euh, lu la ak lu war a xew ci dëkk bi Dakar Buzz di ngeen ko mën am di gën a sant yàlla nag ci ni ngeen ñuy toppee di nu di gën a santaat yàlla ci numéro bi nga xam ne moom la ñuy joxe mi plateforme Dakar Buzz sociale numéro bi 78 601. 11 11 muy numéro boo xam ne ni képp kuy dund émission bi rek soo amee sa ñaar dërëm boo ko fa sànnee dinañ permettre bu nuy seeti malade bi mën cee jël pour mën a jàppale ko loolu ñu ngi ciy sant yàlla baax gis nañ ni ngeen ciy contribuer ndax dëgg yàlla gis nañ tam njëriñ li muy amal malade yi nii fekki ndax lu baax boo koy def yaa cee jiitu jógaat nañ tey sol sunu daal ñëwaat tey ci seet suñu beneen rakk boo xam ni dafa feebar feebar bi nag fracture la woon. mu moon demoon hôpital ñu laajoon ko lim boo xam ne xawoon naa takku ndax jamono neexul mënu ko woon a fay parce que amul loolu ñu ko laaj far yàlla def mu topp faju olof yi bi mu ko toppee nag dem na ba tànk bi causé na ko problème parce que fracture bi dafa génne benn yax yax boobu nag peut-être olof yi mën na noo faj dama dama waaye yax boobu xaw na leen a jaaxal ba actuellement tànk bi mënta banku tàlli rek la mën te ku ne xam ne ne xale mooy jeunesse mooy dimbali boppam ëllëg mooy def boppam mag te bu fekkee say cër dafa am lenn loo xam ne mu ngi lay handicapé mënoo cee def yenn activités yi day métti ñu war ko opérer nag ma leen ciy ñaan dimbal yéen ñëpp ndax ku xool tànkam bii xam ni mënu koo continuer yax bi génn na te il fallait que ñu opéré ko donc loolu te lu ma xalaat na ndax xam naa ne du ma médecin mais jàpp naa ne lii opération moo koy dindi ma leen ciy tàllal loxo yéen ñëpp rek bëgg ko laaj nag tànk bi nan la. ak kañ la ko tànk bi dal ak nan la ko dalee booy maa ngi leen. maa ngi fay sant bi nan la. Ousmane Darame. Ousmane tànk bi nan la la dalee. tànk bi soog moo ma dal oto moo ma mbëkk. mi mbëkkee léegi nag war na def huit mois wala sept mois. ci weeru koor bi la ma la ma daloon. ba léegi nii nag ñu ngi si. waaw comme ni nga ko waxee rek dama nañ ci faju olof bi. ñoom ñu def li ñu si mën ginnaaw loolu nag dañuy wax ne lii fi nekk nii hôpital moo si mën dara pour ñu opérer ko nu affaire nu yàq bi demee nii nu mu génnee loolu la ñuy wax nag. léegi loolu ñu la hôpital wax léegi yow avant loolu abaa foo ñu woon hôpital demoon nga hôpital wala demoo woon hôpital. non demoon nañu hôpital lañ njëkkee dem waaw sitoo leen njëkko dem biñ demee nag am nañ fa lu mat trois jours ba quatre jours. àllarba lañ fa dugg lënd si ngoon ñu génnee fa waaw laaj nañ lu xaw a takk na mooy li wax rek cinq cent millions na lañ laajoon boobu ñu si taayu couvre bi li jënd seen kii ba génn dem biñ demee nag nekk si faju oto ba échange tàng bi toll nii toll léegi hôpital bi ñu laaj laajee cinq cent mille ñàkk am cinq cent mille moo tax ngeen génnoon dem ci ëpp faj olof yi waaw loolu nag boo man ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo waroon affaire bi kii bi faj mi ñoom loolu ñoo si mën wax dara mais man boo ah, soxna xaw ma si situation yi lu bëri. léegi d'accord parce que xam naa ne loolu lay doon parce que le fait que dem ngeen hôpital ñu laaj leen 500000 bu fekkoon 500000 mil ngi fi kon du ngeen dem ci olof loolu moom lu ma xalaat la te it loolu xel dangu na ko. parce que ki dem ba hôpital bu fekkoon yor na moyen yooyu da koy def opération parce que dam bi opération moo koy faj kon manque moyen moo waral ngeen dem ci olof yi léegi nag euh, opération bi léegi ku ne xam ne ne lii opération koy dindi nan ngay ju jànkonte ak tànk bi xeetu tànk bi ak yax bi ni mu génnee nii. moom mit na trop moom foog nat moom weesu na ko dëgg yàlla mit na mit na trop fekk di gis sa yax muy génn dëggul nag natu yàlla yàlla yi tege nattu ngay muñ ba fa muy yem rek ñu si sàkku lépp nag waaw comme ni nga ko waxee rek dimbal bu si waaye mën rek ñu li si xaar waaw di sant ñëpp te surtout yéen ñi nga xam ne dégg yéen ñi dégg micro xam ne gannaaw bi ñuy boole yéen ba léegi keneen rek la ñuy gisee waaye gisuñu leen gannaaw waaw daa mos rek mit na moom bu fu mit yem dëgg yàlla. yaa ngi jàng. non non Issa mu jàng moom. avant toog bi dem daal ko daan def. marché ambulant si si tali ci marché ambulant ci loolu oto bi mbëkk. oto bi fii mu la fiiree daw dafa taxaw wala dafa daw wala yow bàyyi woo ci xel. non oui man moom bàyyi ma sama xel boobu sonn moo mun yóbbul. jërëjëf mbokk yi dégg ngeen lim ci wax lépp oto bi da koo mbëkk marché ambulant la woon di góorgóorlu di ndaw di wut lu mu yóbbu këram ak ay wéjuram yàlla def oto mbëkk mais ku xool tànkam bi xam ne. du tànk bu ndaw waaye ñu ciy gërëm ki xam ne mooy Fat Fall depuis Suisse ndax bu nu amee accès ci moom mii ba mën koo jël Fat Fall la faat Fall kon ñi ngi ñaan sa raq ji yërmande gi nga ci am yàlla na ci yàlla defal ndam ndax woo nga guddi woo ma bëccëg pour xale bii ñu mën koo jël ndax tey bu doon yow luy faj rek yow kon faj ko kon ndax xam nañ sa xol te sonn nga ci lool faat faal kon ñi ngi ñaan yàlla defal la ci ndam léegi nag eh, tànk baa ngi nii opération la te opération xaalis koy def. ñun nag dakaar Buzz Social xamuñu bilan opération bi ñaata la parce que il fallait que mu dem hôpital def traitement bi parce que lii dañ koy traité ba jox ko jour pour war ko opérer comme nag demagul hôpital pour ñu mën ko mën a traité ñun Dakar Buzz Social nañ ci participer cinquante mille mu mën cee tàmbali traitement bi dem hôpital ñu xool ba xam dañ koy rajo wala lu ñu ciy def pour mën koo defal opération bi ndax opération doo tëb tëb rek ñëw ñu opéré la. day def traitement ñu opéré ñu traité ko ba jox la jour bi ñu ko war a dugal bala ko ko mais Dakar Buzz Social dina ko dimbalee cinquante mille pour mën a commencer traitement bi ba keroog ñu koy opéré ma leen ciy tàllal yéen ñëpp nag di xaar ngeen fekk seen suñu frère bi nga xam ne ndaw la di góor góorgóorlu ba li dal ko ci kaw taali bi te mënta continuer ak tànk bi parce que tànk bi mënta banku tali rek la mën mënta banku léegi bi nu duggee ci oto bi rek daf ko taalal parce que mënu ko bank ma leen ciy xaar. fukki junni yi nag mooy plateforme bi nga xam ne yéen yéen ñu ko ci jox ñu koy joxaat askan bi numéro bi di 78 601 11 11 kon Dakar Buzz social dina ko dimbale cinquante mille ci turu Dakar Buzz kon ma jox ko cinquante mille yi am Dakar social jox na ko cinquante mille pour mu tàmbalee ko traitement tànkam bi pour man cee def ay analyse ak rajo pour xool kañ lañ koy mën a programme pour opérer ko tey jii faju nga ba sonn yow ak say bokk te gëm naa ne tey tànk lu tax mu yegg si fii manque moyen la parce que bu fekkoon moyen am na kon ba nga duggee hôpital doo génn te faju ñu opéré wu ko Dakar Buzz Social seet si la ji la ñaanal dimbal pour ñu jàppale la mais en même temps mu jox la cinquante mille lan ngay wax Dakar Buzz waaw comme li ma njëkkoon si ginnaaw di leen si sant di leen si gërëm di wax Adja Fatou bi ñu tudd léegi moom tamit nekk na koo xam ni mën naa ne si affaire yi whatsapp yi nii lañ déggante ba lii xaw nii yëpp yegg si fi ñu yegg si nii moo xew si moom te mën na si man loo xam ne téléphone bii nii ne moom laa la wooyee sànq cinquante mille cinquante cinq mille la ko jëndee jox ma mu tamit aw ma fayam di ñaanal yàlla yéene ma jàmm moo tax mu boole ma yéen te nee na ma am na ñu mu leen boole. ngeen faj ko man wax na ma loolu du benn du ñaar waaw kon nag di leen si sant di leen si gërëm di am yaakaar si yenn trop trop bi ñu ngi waxee ba léegi bi ñu tuddee tur Dakar Buzz jox nañ seen numéro maa ngi ni ma yor waaw kontaan mbégte rek lañ si am chaque jour tamit bu ñu xëyee xelaa leen dañ si gën a am yaakaar waaw gën si am confiance. mais daal bëgg nga pour sa tànk bi ñu opéré ko mu jeex. waaw dëgg yàlla bëgg naa ko trop. bëgg naa ko trop seeg moom lu miitu moom yaa naan mag sa mënu koy jànkuwaat ma jël ndaw moom bëgg naa ko trop si ñaan yàlla daal lépp lu si waay mën rek comme ni nga ko waxee mun mën a nekk waaw. jërëjëf am internet Dakar Buzz lii moo nekkoon seen émission Dakar Buzz social xale la mu ngi dund ak métit bi xam nga tànk bu tàlli tëmante banku metti na waaye di sant yàlla rek ci di ci xaar Dakar Buzz social jox na ko cinquante mille. pour mu mën a dem def gaaw ay rajo xool nu mu ko mën a commencé traitement pour mën a dindi yax bi waaye di gërëm encore une faa Fat Fall depuis Suisse maa ngi lay nuyu sa rakk ji jëlal naa la ko mi ngi nii lu baax rek moo la ci jublu maa ngi ñaan yàlla na am ndam di encore une fois Xaadim Amar Xaadim Amar maa ngi lay nuyu bu baax di la ñaan yàlla taxaw la jàppale la di gërëm Girif Sugu di gërëf Anta Sey dépp New York maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax nit ku baax ka di nuyu Yaasin di nuyu Aline Badara di nuy Issa ñoom ñëpp ñu ngi dund émission bi nekk ci àll bi di ñaanal doomu Sénégal yi nekk ci àll bi yàlla jàppale leen te yàlla suturaal leen may leen xéewal may leen ndam ba li nu bëgg yàlla defal leen ko ñu mën a ñibbisiwaat di nuyu waa Dakar Buzz Social di nuyu waa TM Social di nuyu waa taxawu Dakar Buzz Social te soxna Awa Dia jiite ko depuis Maroc di nuy képp koo xam ne yaa ngi dund émission bi rek maa ngi ñaan yàlla barke la te la nuyu nag Adja Nabo depuis France bu soxna maam Fatou Mbacké Marème Lo ajaana maa ngi lay nuyu baax di ñaan yàlla taxaw la te jàppale la di wax képp kuy dund émission bi rek yàlla yàlla jàppale la di leen fàttali plateforme Dakar Buzz Social bi numéro bi di 78 601 11 11 muy numéro boo xam ne saa bu ngeen ci tàbbalee seen ñaq leen permettre bu ne seeti malade bi jël ci jox ko ko jox nañ ko ci fukki junni di leen ci xaraat rek te xam ne kuy liggéeyal yàlla yoon waa ngi nii waaye bu leen fàtte dem leen ngeen télécharger application Dakar boobu dina leen permettre lépp lu ngeen bëgg a yëg ci réew mi rek di ngeen ko dundu bi Dakar Buzz ci micro Fall mi ngeen tàmm gis la ci cadre bi am Malika la yàlla na ñëpp am jàmm jërë ngeen jëf.